bi démb nan nga ko gisee. opposition bi mën naa ni dañoo war a marche chaque jour parce que ñun réewum démocratie lañ yor mais euh, monsieur le président avec tout le respect que je lui dois am na loo xam ne du cëram parce que boo ñëwee nga fekk équipe type onze de départ yi nga jël ko ni du ngeen football banc de tous bi ñooy football bëgg ngaa am ndam bu fekkee moom mu bëgg na xam sénégalais yi fi mu toll si moom. day bàyyi gars yi ñëw posé candidat comme moom ñu dem ci élection yi lu mu am mu jël nañ fi jëlee euh, Senghor jëlee fi Abdou Diouf jëlee fi Laye Wade moom moo ko fi jëlee nguur yàlla moo ko yor te su ko jeexalee ala kulli yàlla day jeex élection yi passé affaire bi louche na deuxième tour forcément dafa war na ñun ñëpp jàng nañ xam nañ action yi ni mu tëdd mais nag jaay doole ak damm loxo moo tax te boo gisee Sénégalais li ñu éviter lu bari mooy marche bi li fi jaaroon kenn ñaanatu ko yàlla mais fii mu teg tànkam bu ko teggiwut monsieur le président lu ko pire ngay gis parce que Sénégal dañoo sës imagine toi essence yokk na yaa ngi ne am nga pétrole am nga gaz lépp yokk na yow looy jënd fii boo demee Mali lu lay jaayee cent franc Mali soixante quinze franc wala ñun lu suñu yoon si guerre lu suñu yoon si guerre Sénégal da nga sol tenue ba retraité doo dem sax doo téye arme pour tirer bal boo saal salle d'entraînement kon lu suñu yoon si guerre Ukraine lu fa yoon Russie lañ ma suñu yoon ñun li ñu am dañoo doy suñu jeunesse bi ñu ngi nii ñi di dee si ndox mi xam nga ñii di agressé ñuy rey fii leen ndax lan parce que crise bi ne ci dëkk bi te crise bi lépp c'est monsieur le président on se dit la vérité gënoon na fay mettre ab maître Abdoulaye Wade nekk fi mais daf ko doon gérer mais milliards yi mi jël di ko xëpp di ko tuur ci àll bi ak ñi nga xam ne ñoo topp si ginnaawam tëdd ci xaalis bi loolu la war a lijjanti mais pas mun a du ngeen posé candidat yooyu pour am maanaam liberté pour élection pour gagner c'est impossible soit da leen di bàyyi ñu posé candidat am te xam naa moom élection ñàkk ko gënal ndax bu perte assemblée c'est fini 2024 kawoo la mooy. la ci violence lañ jëm. non moom non dama ci bañ a jaar mais fa lañ jëmaat li amoon mars lu ko pire di nga ko gis parce que Sénégalais yi instant sës nañ da leen a pousse bañ sës ci miir mënatuñoo reculer soit moom mooy bàyyi wala ñu demaat ci violence rek. te ñaanu ko yàlla famille yi ñu bari fi dool amuñu lu ñu dundee boo gisee marché bi nii ñëpp ay jeunes ay jeunes lañ koo ci fëgg am na ay diplôme man université laa jóge maa ngi nii lan laay liggéey ay marchand ambulant la fan la tegee te dañ daan wax naa boo jàngee yaay réussir j'ai fait jariñ ñi ma fi bàyyoon ñoom laa ñëwaat a jàppale askan ñu dem ci am Sénégal pauvreul ñi koy diriger ñoo cuune du yoon nguur boo jeexalee demal bàyyi keneen toog yàlla suñu borom mooy tànn ki ko neex mu def ko njit bu jeexee rek jeex na waaw ñun dañ ko ñaan mu bàyyi lépp mu sedd élection am bu ko gañee mu xam ne loolu la yàlla dogal ñun ñoo ko faloon bu ñu ko foolee rek ne dañoo am lu ñu neexut ci loolu laa ko doon wax daal waaw fi li fi am ñëpp ko gis waaw ndax mm, man mii borom kër laa borom kër bu ndaw laa ah, ndax boo leen xool ceeb bi doon jal ñu naan ko bongo mi jal 14000 dem ba ay 18000 17000 dafa ëpp. diw bi nga xam ne ñoo ko daan jëndee ay 19000 tamit ay 21 mu dem 28000 dafa ëpp marché bi force nee la mën a demee ndax Sénégal yi ñëpp ko yëg xanaa gis ne gisuma war nga bëgg ndax gars yi bëgg tamit da leen di Euh, yóbbee ba duñ wax euh, lin bëgg wax waaye daal dëkk bi ku taxaw ni xam ni metti na metti na ba fa metti yem ndax man mi Macky laa woon waaye wax dëgg na yàlla fi mu toll yow mi sax boo posé woon candidat ma ànd yow ndax sonn naa te nag euh, ñëpp a yem ay wax la lambay tax a daj nañ wër rek te dara yomb na marché bi dem noonu la mënoon a demee ndax l'islam sax bi muy taxaw daa metti dafa difficile lép xeex la rek xeexay tax ñu am leen bëgg ndax Macky mi daan na jël maire gardam daan ko ànd ak ñu waaw kon nag euh, démocratie bi fi wàdd bàyyi woon moom démb moom ni ñu gisee démocratie bi neex nañ ndax euh, joxe autorisation euh, day jàmm si ñëpp ndax mbooloo ma fa daje démb boo joxul woon autorisation ñuy sànnante xeer mun nañoo yàq loo xam ne ñoom ñëpp ko bokk. waaw di wax ne daal li gën su ñun yàlla na ko yàlla def tam tam gestu doomu doomu aadama yi rawati ñun sénégalais ndax sonn nañ fa sa sonn yam te mun mënuñoo nekk gambien mënuñoo nekk malien lu mu métti métti dañ koy dékku. tom ñoom ñu nekk si kaw ñoo ñu war a bàyyi xel nañ ñu bàyyi xel ay quatre-vingt mille yi may dégg temps yi yëpp amaluñu njariñ buñ ñu ko jàppale woon ñu euh, defal ñu ko ay ay usine ndax ñun ñuy gàddu bagage yi xamal li gënalul kenn yor suñu bagage yi di wëreelu gënalul kenn bu dëkk bi amoon liggéey ñun ñëpp dañuy dem liggéey waaye lii bañ a toog doo nga ko waral waaye daal dëkk bi metti na loolu moom xam naa waa ji xam na ko metti na lool waaw. position bi ñoo gagné lépp ndax a mooy. yàlla suturaal na leen ba ñu bari xaaj bi kenn demut ñu waroon a dem ñëpp ndax li ñoo bokk ñun ñëpp lu ñuy naqar ndax ñoom ñi taxawoon foofu tey jii nii opposition bi tey di def seen conférence ñun ñu nekk fii ñun lañ koy defal mais man li ma si gën a neex mooy kaas tojut te loolu seen victoire la. dina tax bu beneen yoon ne tey jii nii bu ñu ñaanee bu leen mayul dañuy xam ne ñoom ñoo jël décision may leen ndax dëkk tamit am na lii def si am du ñëppay neex la noonu ñu amee lu leen naqari am na ñoo xam ne tey ña nga toog dañoo mënut a teewee foofu mais am na lu leen naqari ñoom it dëkk bee metti loolu ñëpp ko amul lenn ba si ñoom ñi si pouvoir bi sax am na ñoo xam ne ñu ngi koy yëg mais nag ñëpp mënuñoo demandoo li naan ñëpp mënuñoo yëg ak il faut am ñu xaar suuf loolu ñun bari na bari na bari na dund bi ñuy dund metti na ay jeunesse lañ ñoo dem fenn te ku sañoon tey jii nii fi ngay liggéeyee fi ngay dund fi nga juddoo yaroo fi nga amee sa trang génn ko mooy premier sac buñ soñoon ay immigré yooyu yëpp duñu ci fekk fii la amee leen bëgg lépp fii la ñu amee leen bëgg lépp duñ tukki duñ def dara mais nag buñ demee ba dund fii métti métti boo xam ne carrément tey ji nga dund ba rek am benn âge boo xam ne say empreinte leer nañ kenn déggula si tolof tolof kenn déggula si benn détail bu mag ku ko def rek jàmbaar nga ndax temps bi actuellement dafa métti même bu métti woon tamit tey la gën a metti mais non buñ ko basé si loolu buñ ko basé si loolu buñ basé si loolu dëkk mën naa neex te pas mu demee noonu jàmm mën naa fam nit liberté rek jàmm la mais bun basé ay guerre Ukraine beeg yooyu non non liberté rek may nit ki mu bëgg a wax wax mu bëgg a def def comprendre loolu rek jaar am sécurité bu doy loolu rek baax mais tey nii mën a dox heure comprender pour dal sa kaw sax. yow mi dal yow mi koy dékku sax xam nga li war a mu dal sa kaw sonn moo waral mu dal sa kaw te mënoo ko résister te loolu dafa metti temps dafa metti boo xoolee jeunes yi fii nii boo demee àll bi village xool booy nekk si àll bi ñëpp dëpp nañ ñu ngi fii tey di nii booy boo si gis mu yor valeur bu dix mille francs boo demee mi ngi dundal quatre personnes wala cinq personnes yoo xam ne si ginnaawam la ñuy dund ay ambulant ñuy ñàkkante di xëy ngay gis koo xam ne day xëy suba ba ngoon jot bëgg a soxeeku mu tegoo talim yor matul dix mille francs keneen ak keneen nekk nga gis koo xam ne day yor place mais tey jii boo calculé woon place am la fa nekk lépp ay détails comprendre buñ ko calculé woon moomatu si dara lekk na lépp fu métti temps bi métti la def métti na buñ ko waxoon buñ ko waxul lép métti na waaw marche opposition bi demb faw muy am faw faw opposition di am ci dëkk eh, njiit bi nekk ci kaw muy président de la république faw mu bàyyee loolu ci xelam ah moom mu bàyyee xel ne tamit. opposition bi lu ñu marché marché tamit moom la ñuy dimbali ndax kuy yëngatu yow da xam ne problème am na mais su ñëpp nekk teg yow mën na am nga beew nga defee ne ñëpp am nañ satisfaction mais opposition opposition boobu doon yëngatu ba tey eh, Macky mooy seen président moom na ko xam ñi ñi ànd ak moom ak ñi àndul ak moom yëpp moom du président ñi ànd ak moom président Sénégal la kon ñun ñëpp moom moo ñu jiite te responsabilité bi muy ci kawam te moom mooy. sàmm bi gën a mag ci biir Sénégal donte dañuy naan nit ku nekk sàmm la te dinañ la laaj nan nga doon sàmmee dem eh, faw ñu bàyyee ñu xel dëkk bi métti na lool lool soo xoolee ñi taxaw ne di jaay yëpp mën nga fi taxaw 10 minutes ki taxaw ak njaayam doo gis ko agsi ci wetam kon yaa problème te jaaykat yi waaw quoi qu'on puisse bëri nañ te dëkk bi dañ ne su ñëpp di jaay kan mooy jënd mais lan moo waral loolu ñàkk pexe. formation yi centre de formation yi dangay fekk centre de formation bu surchargé ñëpp def seen formation ba génn normal mais pour nga am liggéey yaa problème nga nekk ci yenn niveau yi mais ñemu woo sa droit ndax lan da ngay ñëw Sénégal à bas âge nga nekk ndaw comme li la waa ji wax sànq euh, borom kër lañ ñun ay borom kër lañ suñu ndawee borom kër lañ suñu màggee it borom kër lañ mais am na yoo xamante ne boo gëmul yàlla dëgg-dëgg di ko souffrir ci place liggéeyukaay doo ñemee révolter sa droit ndax lan loo fi bàyyi sa morom jël ko kon entente boobu amul ci biir sénégalais sénégalais li ma leen di ñaan mooy ñu gëm ne yàlla moo fi ne yàlla moo fi ne parce que soo xoolee coono yi ñuy daj ci biir entreprise yi yëpp ay étranger ñoo ñu koy teg te étranger yooyu koo ci amal problème nga dem justice liñ ci seetlu su dee dix la neuf yi étranger yi ñoo gañe te ñoom ñoo lay tooñ kon faw gars yi gestuwaat seeni doom newuñu ku tooñ nga faral ko mais ku ñu tooñ nga jox ko cëram mais dëkk bi moom métti boo ko waxee moom métti na boo ko waxul métti na amul secteur boo xamante ne nooy na fépp fépp dëgër amul secteur boo xamante ne nooy na ndax loo xamante ne prix yëpp surtout ce qui produit laitier tout ce qui est produit laitier dafa yokk leneen lu dul loolu dafa yokk am na ñoo xamante ne sax peut-être dara impacté wul mais comme dëgg nañ ñeneen ñi di yokk. ñoom ñu ngi yokk nan moo waral loolu suñu njiit yi tamit defuñu seen liggéey man damay ñëw rek yor samay magasin damay am envie yokk bi am envie wàññi dëkk du doxee noonu dëkk day am sar am na tund yoo xamante ne soo fa nekkee lii la war a jar moom lay jar bu yokk di am eh, gouvernement bi na waxtaan ak commerçant yi ñoom ñuy yokk teg ko ci yoon su loolu amul moom ñun moom léegi léegi léegi ñu dee parce que affaire bi moom. métti na lool lool lool lool ku la ne salaire mën na ko satisfaire ci wàllu yokk-yokk yi da day waxlu ko ne ku la ne mën na mën na épargne mën na épargne ci salaire bu mu yor day waxlu ko ne mbir mi métti na lool lool lool mais damay ñaan sénégalais yi tamit eh, ñu ànd ci ak gëm-gëm ndax eh, metti tamit bu mu tax nga def loo xamante ne borom bi tere na la ko ndax moom moo la ne fa inna ma'al xusri yusran jafe-jafe mu ngi ànd ak yomb-yomb Eh, loolu tamit ci dëkk bi nu mu méttee ku nekk gëstu sa bopp ana lan nga defal yàlla te mu santoon la ko ana lan nga def ci yàlla ci lu mu la tere ndax loolu tamit eh, jar na ñu nit ku nekk nga xisaab sa bopp ndax méttiwaayu dëkk bi nekkul ci gouvernement kese mais population bi nu ñuy doxalee ndax maa ngi ne gis nga ni ma téyee sama téléphone maa ngi sóoraale nit mën na romb fii rek këf ko lu ñuy këf ci téléphone parce que gi buy jub Sénégalais gi day nekk ci fitna tabaski buy jub sénégalais yi day nekk ci fitna li ma gis ni nee naa la téye naa sama téléphone bu baax soo gisee ni timbre laa jëndi woon ki may jëndal timbre bi dañoo sàcc posetam jour bi ci teguwaat ñu sàccaat téléphone am day war a déposer d'identité war na récupérer pisam kon loolu rek fitna la kon nit ñi tamit ñoom ñu xam ne tamit yow miy sàcc xamal na dëkk bi méttiwul ci yaw dong ka nga sàccal rey nga ko loolu tamit suñ ci boolewul gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg wallahi dañuy gën a sonn bu baax a baax a baax baax jullit yi su jullit da nekk jullit wala nga bañ a nekk jullit chrétien bi da bañ nekk chrétien wala nga bañ a nekk chrétien parce que religion bu fi nekk ak ay chartaam charta ñu la tegal boo ko wàccee rek da nekk ci fitna gis nga dëkk bi métti na lool prix lépp cher na mais boo ci gëlee gëm yàlla bu mat rek am loo xamante ne da nga ko suturloo parce que ñun ñi moom moom bu jaayoo woon ceeb un million yàlla dinañu suturaal ba ñu am un million bu ñu koy jëndee ceeb moom faw ñu lekk loo fi mënti kii te ñu war koo dundee lu mu cher cher cher yàlla dinañu suturaal ba ñu jënd ko mais li fi gën moom ñoom ñoo ñu jiite ñoom xam nañ lu métti xam nañ lu woyof ñoom nañ ñu teg lu woyof te ñoo xam ne tamit eh, àdduna du jëmul fii quoi ab bul bi day tourner te suba tamit kenn xamul kuy fekkee loo loo dul fekkee nettali ba xamal loo cay wax wax ca loo xam ndax suba lépp nettalay mujj ci kan mooy nettali kan lañ koy nettali loolu tamit lu mat a sóor la.